allo salaamaaleykum waa euh, waa réew mi waa alo Dakar maa leen nuyu ziare xam nga waaw di wax daal xam waaw mooy loolu daal rafet nañ seen teewaay seen waaw seen ñëw xam yàq seen temps waaw tey mu mënoon ngeen dem defi leneen mais xam nga da jël seen seen jita tey pour ñëw xam waaw defal ñu daal li nga xamante ni waaw waaw voilà yite woon nañ ko te tamit la des si baax tamit quoi waaw kontaan nañ ci trop daal. waaw dibiteri man moom <laughs> ah, sama sama sama grand daal moo si dugal quoi waaw sam sam benn grand la parce que man lii mu woon di dibiteri élève laa woon dama doon jàng quoi mais ba jàngee terminé affaire yooyu toog def ma dara après sama grand bu créé dibiteri bi moo ne ma kaay xam nga may jàppale quoi liggéey affaire waaw looloo moo dugal daal si Twitter ba mujj bi dem naa daal ba mujj bi daal moom mooy loolu buuse <laughs> laa quoi <laughs> roole naa si Seydou kuman sa sa daya tax kuman sa daya tax kuman waaw waaw nit ki moom lépp loo gis rek moom xam nga avant muy neex moom si metti lay njëkkee xam nga il faut mu metti ba pare doo ko neex mais nag nit ki moom bu fekkee yaa si yaa ngi si yoon bi rek xam nga da ngay da muñ xam nga gëm xam si si si li nga nekk daal nga gëm ko ko nit ki moom lépp loo nekk daal boo gëmee man gëm naa ne bu si yàlla jàppalee xam waaw di nga si gis ay njariñ njariñ quoi waaw li mu tëree moom xam euh, xam naa ni euh, Dimitar mhm. Lambate xam naa ni euh, suñu suñu suñu suñu papa moo créé lii bi quoi waaw suñu papa mi ngi tudd Cheikh Abdallah Fall Cheikh Abdallah Fall mais il décédé en euh, trois ans dal trois ans mais moom moo koy créé lii bi Dimitar Lambate man xam naa ni yàgg na waaw xam naa ni ba bañ koy créé ba suñu papa di ko créé boobu sax juddooguñu mais moom moo ko créé tuddee ko Lambate li yëpp daal moom moo ko liggéey ñun dañoo ñëw di ko continuer Non, non, c'est que, on va dire que yàbb bi dafay nooy xam nga xale mën na ko lekk mag mën na ko lekk xam nga keneen ak keneen moo mën mën na ko lekk borom bu bëñ bi métti bi sax mën na ko lekk gëm naa ko voilà. <laughs> waaw waaw suñu diggante yi client yi nag loolu si ëpp solo nag loolu si ëpp solo surtout si wàllu kii clientèle bi client moom boo boo ko bëggee jàpp danga koy defal lu li nga xamante ni moom la bëgg waaw ndax euh, lu tubaab naan le client et le defal ko lu lu bëgg rek bu neex nga jaay ko yàq nga jaay ko yàq bu ne nga jaay ko yàpp nga jaay ko yàpp xam nga bul ah am moom ay discussion xam nga bu bu bu liee sax nga ne ko man maa tooñ xam nga bu doo wax di jub nga ne ko maa tooñ ah mu jeex voilà ndax ñoom day dañuy yor seen xaalis rek di jël xam nga defal ko li nga xamante ni moom moo ko neex fii nag mooy di di di dara mbote boo ñëwee dañ lay defal li nga xamante ni moo la neex jar na jar na moom boo ñëwee moom lay jaay jar incha allah. képp koo xamante ni da ngay euh, liggéey si li nga xamante ni mooy lekk la wala ngay jaay li nga xamante ni mooy nan la fexeel daal mooy première de choses mooy hygiène bi ko mooy set bi loolu loolu moo si ëpp solo jaay li nga xamante ni mooy qualité tamit surtout euh, am nañ euh, am ñoo xamante ni duñ jaay qualité yàpp duñu jël façon yàpp ba nekk di ko jaay dañu ci moom boo bëggee lu baax bu fekkee li nga xamante ni yow di nga ko lekk di nga ko lekk ah boo boo boo koy lekk nga yéene ko nit ñi mais léegi li nga xamante ni yow bu buñ la ko joxoon sax doo doo ko lekk kon bu a lii mais liggéey bi na set am entourage bu baax chaque jour nettoyer hygiène loolu daal moo si ëpp solo quoi. Let's loolu yëpp dañ dañ def livraison yaa ngi fi pare que chaque jour gars yi buñ commandé dañuy def ay euh, livraison à à domicile waaw livraison yi moom ça dépend rek si fi nga dëkk yow quoi ça dépend fi fi nga dëkk mais gaaw na mën na fekkee comme par exemple en trois jours Médina bi nii quoi Médina bi nii lakk bi ak affaire yooyu yëpp dina jël comme par exemple benn 15 minutes Kolak ko lakk mu dem léegi si entourage Médina bi bu fekkee ay côté ville ay côté gël tapé affaire yooyu dina jël au moins ay 20 minutes mais bu fekkee nag dafa génn comme dem ay wakam ay liberté 6 ay mamel affaire yooyu mais dina jël au moins benn 45 minutes daal waa day woote si numéro yi boo boo neexee mu woo premièrement mu woote si fixe bi 33 822 13 88

damay euh, gërëm daal waaye soo soo su may gërëm may waa Allo Dakar comme par exemple ñoom ñoo déplacé wu xam nga bàyyi seen yitte bàyyi seen yëpp pour la pour ñëw defal ñu li nga xamante ne mooy interview defal ñu li nga xamante ne mooy bépp waaw man daal ñoom laay ñoom laay njëkk gërëm waaw di wax tamit clients yi tamit xam waaw ñu ñëw seet si la mbote waaw ñu ñëw seet si la mbote xam xool daal lu lu lu lu fi teew waaw nit ki moom boo gisee rek te te te ñëwoo du neex il faut nga ñëw xool waaw lu gars yi di liggéey waaw loolu daal laa si am di wax di nuyu gars yi tamit nekk waaw waaw sama sama gars yi liggéey ñoom Ahmed Khadim xam ñoom Zal Abdou Sidaat maa nuyu di sama grand papis maa nuyu ñoom daal waa équipe bi ñoom Anak ñoom waaw waa ñoom aw ñoom ñëpp daal